réew mi dafa nekk ci ay jafe-jafe euh, yu jëm ci digganteem ak syndicat jàngalekat yi yàgg nañoo waxtaan ci mbirum euh, parti politique ak ci mbirum syndicat parti yi ñoom dañuy xeex ngir jël nguur gi ak tabax réew mi kuy tàggat nit ngir ëllëg mu yore réew mi am nga cër bu màgg ci biir réew bi war ngaa wax ci politique yi niñ koy doxalee war ngaa wax ci réew mi fu mu jëm ak ci koom-koom bi nuñ koy doxalee war ngaa wax ci euh, cër biñ la jox ak euh, jumtukaay yi ñu war a teg sa loxo ngir tàggat bi nga war a tàggat gone yi nga mën caa àgg moo tax jafe na trop. ñu ne lii politique la lii syndicat la ndax li leen wuutale lu tuuti la waaye ku ci nekk nag war ngaa xam foo mën a yem ak luy sa cër moo tax fi ñu toll nii euh, jafe-jafe yi war a nekk ci école bi dañ toog bi waxtaan bi lu ci war la mooy dialogue social bi fi nekk tey ah jàngalekat bi nag ci boppam yàgg naa xeex euh, mbirum démocratie yàgg naa xeex mbirum liberté mbirum اك ak mbirum بو موتاخ mu با لو خيو lu xew rek nga mbubb woo ko am na lu lay dal ci biir l'école bi war ngaa caa taxaw nee respecter les franchises universitaires respecter les franchises scolaires kep ko ne ci biir rew bi nak bu la lu bax dalé wala safan dal la nit ñi mën nañu koo naqarlu mën nañu la euh, solidarité euh, euh, waaye waru ñoo mbubboo la nga tibbee fële te bokk dara ca sa liggéey ak sa sa doxalin ba mën cee yóbbaale nit ñi léegi nag yëf yi sa mbax loola rek muy gouvernant yi muy citoyen yi léegi kenn respecteetul luwaay yi loolu moo tax tey ku yëkkati sa loxo rek euh, euh, ñu ne tell ma rajax loolu dafa war a génn ci euh, jóge ci ci réew mi ñu jëlaat yar gi di tàggat politique ñiy def politique di tàggat mbirum syndicaliste yi di tàggat citoyen bi pour mu xam moom itam lan mooy taxawaayam ci biir réew mi